nuyu leen rafetlu ànd beeg rajo Futur Media am mbégte bés bu nekk di ànd ak yéen ci suñu journal fait divers mu di xalaas ci rajo Futur Media lundi ba vendredi euh, Aba nekk ci yitte ñu di ko xaarandi ngir mu ñëw ànd ci xalaas ni ñu ko baaxoo bés bu nekk ak Mamadou Ndoye Bane maa ngi lay nuyu bu baax Bane. jaajëf maa ngi lay ziar di la béggee di béggee passe partout ak ñiy déglu ñëpp. maa ngi leen di ziar tey moom dama koy gàttal moom. ndax hmm. tey moom waaw dafa yoon wi dafa sori dem ba Ndar. Ah, incha allah passe partout ci loo ah, nekk temps daa xat nuyu nañu Sénégal yëpp ñu ne passe partout ñu ne kagulaar baa yaa ngi ci jàmm sant bu baax a baax a baax alhamdulilah mais mais yow jàmm ji ngay faral di ñaan ci réew mi mënut a ñàkk baaw moom moom kay na ñëpp am jàmm fi ne Sénégal moom ku fi ñaan jàmm ku ne rek mhm. bu baax waaw del ñaan jàmm moom kay ñëpp am jàmm hmm. na réew mi am jàmm ñiy dundee réew mi am jàmm doomi réew mi ne yi ne bitim réew it am jàmm hmm. waaw te dara def dara seeni dama am rakk ju nekk Touba ñu koy wax Cheikh Sow waaw Cheikh Sow neex soow. neex ah, soow waaw neex soow euh, la nekk marché Ocass. Mm. waaw moom daf laa sopp. man chaque jour mu yóbbante ma ci yow kooku suma rakk ah sopp na ku baax. waaw sopp na ku ndeyam gërëm. <laughs> sopp na ku Cheikh Bass Abdou Khadir gërëm. sopp na ko Youssou Ndour gërëm sopp na ko waa Pire gërëm sopp na ko waa groupe Futurs Médias gërëm sopp na nit ku baax Cheikh Sow nit ku baax. ne ko sopp nga sopp na ku koo xamante ne ji ñi bon bëgguñu ko. waaw waaw képp ku bon rek. doo mën a bëgg ah, nooy baax ko waa jërëjëf waay <laughs> képp koo xam ne bëggoo ma rek xamal ni nit ku bon nga. baaxoo kon baax na ah déet bul wax loolu baan. ku bëggul ndoy baan nit ku bon nga njaay. waaw loolu kay moom la am la. mbaa danga may waaj a bay. man kay mosuma la bëgg. Sénégal <laughs> fu damay négocier rek <laughs> damay négocier rek. <laughs> non ah, ban non Ndiaye mooy yaa ngi noonu rek. Ah. Euh, partenaires yi laa bëggoon a gërëm. ayca ayca ayca ayca. waa l'écran dañ leen di gërëm bu baax a baax partenaire la ñu ci xalaas biscuit euh, biscuit Rio. Mhm. nga xamante ne ji man ni ko waa réew mi di wëree. ndekete dañoo xam la ca nekk. biscuit biscuit euh, Rio non xooj beeg poñse beeg. yu xale yi boo ah. boole koog l'écran waaw. <laughs> may nga ma ma ñëw ci meew l'écran ah, meew l'écran nga xam ne li ñu faral di wax euh, euh, euh, la plus belle preuve d'amour mooy mhm. meewu l'écran di yàgg gëm xalaas di ànd ak ñun damay nekk auditeur ah, <laughs> mi ngi noona waa kër établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère borom Pink Buzz yi borom parfum de luxe yi mhm. ak ñi nga xam ñoo fi yoroon vite fait nga xamante ne bala nga xam njëriñu vite fait nga dugg ci àll bi ak li muy def ci yooyu Ah, kon jeex na man joxoon nga ma ko fii yaa ak sa waay. waaw mi ngi noonu mais également programme national de lutte contre le paludisme. ñu ngi leen di mhm. gërëm bu ah, ah, baax a baax a baax ñoom it di partenaire ci xalaas yaakaar naa Ablaye ñooñu la de aw ma ku ma fàtte liste balaa yorul. mooy ñooy joxe moustiquaire euh, yi. ñooy joxe moustiquaire yi ñooy prévenir gars yi ci ni ñuy moytoo sibiru. waaw waaw bu fekkente ne sibiru da lay tàmbalee dugg ñoo lay wan yoon bi ngay jaar ba du la dominer. Euh, boo fa demee dañ ci wax lu am solo c'est-à-dire mi gratuité bi ci am. ci yenn partie. ñoo koy leeralal. da cee baax de léegi sibiru tëdd sa kër dafa xeewi yi waaw waaw mhm. eh, di fanaan yooyu di la kii ngay upp wala ngay dem di yooyu yëpp dafa xew jëlootal sa moustiquaire rek waaw waaw mhm. moustiquaire eh? dëpp ko ci ba man day xam naa dara moom ana xale bi ñu violé woon yaayam ba doom am ci eh, affaire bi def ko kaa déglu ah. déglu ko anu anu mais xam nga sunu technicien bi waaw dañu ko war a changer parce que vraiment voilà c'est ça mu ngi noonu daal technicien bi xaw ma nu mu tudd xanaa gan la fi <laughs> ki mooy sëtu maawo bi <laughs> sëtu maawo jox jox ñu élément bi nga déglu sëñ bi sama yaari fa nekkoon géejewaay quartier bu ñuy wax Baye Laay mu am benn ci kër nijaayam waaye am na benn xale bu góor bu ñu jàkkaarloo woon kër souvent gars yi dañ ko doon yëkkal nee na bés mu yóbbu añ xale bu góor bi fi yónnee ko te li ma fàttee wax li ma la njëkkoon a yónnee mooy da ko tegaloon paaka mu naa sa ko dem moor bi loolu amee mu waxut kenn mu noppi mu daal di ñibbi village baale ëmb kenn laaj ko waxut ak kenn mu toog ba yàlla mu cal ko mu am doom xale bi ñëw doon doom bu góor mu wasin deuxième semaine entre guerre Sénégal Mauritanie kon xale boobu léegi dama lay ne xëy na jege sama fanweeri at xale bi màgg nag mu ngi Europe nii am na kari àdduna di wax ne du ma mos a takk jabar ndax dama ragal ak ku ma bokkal dafa dafa ragal te man mi nga xam ne may magam itam dama ragal am yaakaar ci yow am yaakaar ne danga ma jàppale dëgg la mënu maa daar mais maa ngi lay maa ci yow daar ñaan sëñ bi xale bi déclaré wuñ benn kayit ne du way papaam euh, xale bi ba tey kenn mësu ko wax ne diw mooy sa papa euh, sama waajur bu jigéen dafa jël euh, sant xale bi jox ko samt sant papaam moom mu ngi mel ni santaam la jox xale bi dégg nga santaam santaam la jox xale bi xale bi kenn mosu ko wax ne kii mooy sa papa ak déclaré ak yooyu noonu yëpp amul xale bi dafa màgg uut kayiti kayiti boppam def ci sama tur sama sant man man ni ma sama sant la ci def pour au moins ndax ki nga xam ne moo ko jur mënu koo wax ne di woy sa papa xale bi kenn mosu koo présenté papa waxoon naa la ko itam te bu njëkk ba xale bi nekkul ne dañ ko wax ni kii mooy sa papa dugg na fi jaana fale dirit xale bi amul kenn ku ko wax ni di woy sa papa dugg na fi jaana fale amut xale bi xam na ne papaam loolu foofu moom xam na ne papaam existé bu muy gën a nekk xale bu laajte woon papa bu laajte woon sama sama yaay kan mooy papaam léegi mère bi du koy uyu ndax mère bi du am lu mu ko wax xale bi kenn mosu ko wax ne kii moo ko xam kenn déclaré ko bu dul yaayam bi ko jur moo ko déclaré moo ko téye yéeme na de. Mhm. waaw. en tout cas. yéeme na de. fii daal passe partout. amul en tout cas. Ah. lii. waaw ah. ñaan yàlla def ci sutura rek ba keroog muy sotti. mais nag ndax bu fekkee li mu wax. waaw yaayu xale bi mënoo koo jam. Mhm. bari na fi ñoo xamante ne ji dañ leen di forcer violer leen. waaw mm-hmm. déggoo na am na ci bës boo xam ne paaka la ñu ko indil. waaw mm-hmm. waaw xam mm-hmm. yóbbu ko village. waaw nëpp nëppal nañu ko ba xale bi am na trente ans. xale magum jëmm la. gis nga di nga yeewu dégg ñu la nit daa pendre boppam wala nit daa xaru wala des choses comme sax yu mel nii yu mel nii koy waral. nu ñu ko mën a rafetalee ba mu am maanaam capacité wanam xelum mën a. encaisser affaire encaisser lii. wax daaj ko def nañu ko def noonu. xam nga par exemple boo dee ba am ba am benn maturité bi. Uh-huh. pour nit wax la lu lay gaañ day jafe. Uh-huh. Mm. nañu bàyyi ba mu yegg foofu. li ñu muñ téye ko muy secret pendant trente ans. Mm. buñ ci góorgóorloo dinañ ci defaat yeneen trente ans. waaw ah. am na dëgg yoo xam ne xoolal. Uh-huh. wax ko sax di ngor sax mayewu ko. Mm. ah waaw mais am na nit daal fu muy toll tamit war na mën a toog ñu préparé ko suñ ko préparé mën nañ ko wax dëgg jaar. Ah. Ah, waaw mais xam nga booy bi di leer mooy du mere yaayam. waaw bu mm-hmm. fekkoon yaay ji da daa taxawaalu ba am ko ci. waaw ne waaw. wala wala toppatoo ko. voilà wala toppatoo ko mais moom li ko dal. da daal nañu bari fii ah, bari. problème bi kay mooy yàlla dalay suturaal nga génn ci ëmb du la ca topp. Uh-huh. wala yàlla nattu la nga muy uh-huh. dégg xalaas bi nag. ki defoon loolu ca jamono ca jamono 88. est-ce que xamante bu déggee xalaas bi gëw ma ne dana am fitu dem naan maa defoon la fii viol du màgget tey bu demee dañ koy tëj. kon maanaam muy dund. duñ ko yaakaar mu dee duñ ko yaakaar. non man man am naa ci xarit am naa ci boo xam ni loolu noonu noonu la juddoo. mais bi mu ñëwee wax ma ko dama ni ko saay. Mhm. liggéeyal sa liggéey te dox soo dox fexeel yow daal kilin. kaasaw yi ci des bu ko toppatoo soo ko toppatoo day yàq sa àdduna. Mhm. noonu booba léegi mi ngi ci mi ngi ci yoonam di doxal doxal. Njaay. ban njaay kër yi xumb na. yàgg nga ko wax de. xam nga Sénégal da naan Sénégal dëkku teraanga la Sénégal dafa mhm. am jàmm patiti patata mais Sénégal biir kër yi amul jàmm. Hmm, am na kër yu am jàmm ban. da xoolal dañ koy xoolal dañ koy rafetal. Hmm. yi dañuy maslaa rek. dañuy maslaa kër yi amul jàmm. Hmm. hôpital yi réew mi ne war nañ leen a dimbale. waaw hôpital yi. hôpital yi lu fa xew. sonn. loolu surtout fa ma demoon. waaw amuñuy moyen. Ah. malaat ya yor seeni i ordonnance amuñ luñ ko jëndee. waaw ñi leen war a faj mënuñu ci ñoom lu bari ndax li leen di faj. médicament ya amuñu ko. ah non ban boo demee hôpital sa àdduna day tukki. ah maa ah. fi dem hôpital boo xamante ni. waaw yaakaar naa ne hôpital moo si gën a ban bi ne Kounoune. Kounoune. waaw. <laughs> danga ko yaakaar rek. ñoo ngi waaj damay damay bañ damay bañ a wax hôpital ba ma demoon de waaye. ah nañu dimbali hôpital yi ah war na leen dimbali de yëpp. ah hôpital yi réew yëpp. bu surtout bu maam da baax bu te teewaan moom moom ñu ngi xam naa. ni moom dañu fonk docteur boo boobu it war nañ cee taxaw. ba nit bu feebaree dañ lay ñëw ne docteur bi ginnaaw yàlla yaa ci des. Mhm. waaw xam nga baat boobu daal di. waaw ginnaaw yàlla yaa ci des. waaw dañu fonk docteur yi. moo tax mhm. gars yi bari ubbi. taxaw ci paj mi. Mhm. parce que bu la yàlla wërsëgalee loo mën a fajoo dem clinique defi consultation. Ah. sante ko yàlla. gis naa ko ñu bindal ordonnance douze mille mu taxaw ci hôpital bi di màjjal lu ma ko jëndee. waaw bari na. bari na fi li ñuy fii nag mais de naa la laajal booy bi quatre heures du matin samedi bi passé quatre heures du matin malade yaa malade yaa ngi fii ci buntu rajo bi daal xam naa ne daal Ndiaye su ma amoon ñeenti ministre de la santé lay ñeent Ndiaye waaw ñu doxantu ba Ndar Saint-Louis wujj peccor go waaw kii di wax suñ ko jàppalu dañu ko rey wujju peccorgo maanaam frère am waaw frère jëkkëram waaw jabar waaw hmm. Hmm. comme maanaam frère muut baan waaw maanaam jabari muut baan waaw ak yow sa jabar waaw ay wujju peccorgo la waaw ah. yow jabaru am di jabar ak jabaru am ak sa jabar ay wujju peccorgo lañu jabari Ablaye Diop waaw ak jabaru jibi jibi sëy ay wujju peccorgo ñooñee nag mayantewuñ jàmm seen biir damay dégg jigéen ñi di ko wax wujj piir mooy wujj peccar ko te bokkuñu jëkkër. Mhm. mais amuñu jàmm ba kii di wax nii suñ ci jugul suñ ko jàppalewul di nga xëy suba. dinañ ko rey de déglul. Ah, man de jaaxle moo ma indi fii jaaxle naa torop torop torop gisam benn wujju peccar ko boo xamante ni daf may menacé de mort daf may menacé de mort ndaxte daa am benn problème bu ñu fi amoon depuis au départ digganteem la woon ak boroom këram mu joteeg boroom këram. boroom këram indi ay bagagem am sama jëkkër ñoo bokk baay mu dénk ko ko léegi mu dem ba mu dellusiwaat mu bàkku ne képp ku jote woon nag jotee boroom këram képp koo xamante ni daal waxoon nga ci dina la indil problème boroom këram nag jëkkëram nag ak sam boroom kër ñoo bokk baay bi ma expliqué sam boroom kër ma ne ko bu ko téyel ay bagage mu ne xam nga affaire doom baay dafa xaw a doy waar su ma ne téyel ma li te téyelu ma ko day ndur leneen te sama mag la ñoo bokk baay bu doon koo bokkal ndey ak baay sax di nga ci mën a négocier waaye bu ma ko téyelul rek day gis ne pour affaire doom baay ak yooyu ma ne ko waa ba tey loolu yéen la léegi bi mu ñibbisee ci kër gi man ak jëkkëram ñu am problème fekk da doon jël gasam di ko teg sama taatu fenêtre di ci toggee taatangaay la woon dip ci élection yi la woon 16 mars la woon bi élection yi passé noonu tuuti man ak jëkkëram ñu jàppante man ak jëkkëram bi ñu jàppante jëkkëram tëkku ma ne daf may dóor dama taxaw di ma saaga bi ma tëkkoon ne daf may dóor taxaw di ma saaga xamal ma ne carrément li ñu leen may ci kër gi moo maa ngi xëy waaye ma ñëwaatee su ma la fi fekkee daggal ma saaga le temps que muy ñëw ma dem police expliquer leen yëpp wax leen ko ko ñu jox ma convocation ne ma naa ko indil jëkkër ji ma jël convocation bi indil ko jëkkër ji ma jëlee convocation indil ko jëkkër ji ñu daal di dem police ba bi ñu demee police ñu fekk fa adjudant Bassène taaj ñu man ak jëkkër ji yëpp ñu expliquer li ñu jotee wax dëgg yàlla adjudant Bassène tamit def ci lu rafet ne ko yow kii sa jabar frère la am na foo xam ne waroo faa egg ak ñoom ku nekk ci ñun ñaar ñu mettre la en garde ma pare ci wax jooju ma daal di ñibbisi bi ñu ñibbisee tamit jour bi ñu ñibbisee la même jour jabar ji daal ciy dugg daal di may indil histoire ba mën ak moom jour boobu ñu xeex ñu xeex ñu àtte ñu bi ñu xeexee ñu àtte ñu mu tëkku ma menacé ma menacé ma de xamal ne ma carrément bakkanam ci sama loxo la nekk ma xamal ko ne carrément ma ne yow doo yàlla ba di ma tëkku naan la di ma tëkku naan ma danga may rey yoo xamoo ndax di nga fanaanam déet boo ma danga may rey it ndax nga sa bopp ci ëllëg si photo yëpp mu ngi ak man mu jël ay bagage am indi ko bi sama taatu fenêtre. di fa di fa di fa toggee di fa baxalee ndox. ma nit waxuma ko dara ma kay seetaan. léegi mu xamal ma ne carrément bu kër gi bu fa nit ñi nekkee du nangoo wax bu nit ñi génnee mu nekk di expliquer di wax di ma xamal ne carrément naan ma ndox mu sedd mi yow laa koy soode. heure bu ma waxee loolu ma ne comme que kër gi day wéet du ma ci boole wax bu ñëpp demee ma duma biir néeg tëju. wala ma génn dem toog ci biti ci nit ñi. ba xam ne lii jëmul kër ma dem police bu soor ma porte plainte ma wax leen ka ma ne leen man de diw daf may menacer de mort dima tàngalal ay ndox ak di ma jëlal ay paaka adjudant bookum daal ñuy taaj ñun ñaar ñëpp daal di ñuy wax daal ñuy wax ku nekk lu mën a dugg sa bopp. moom mu ne menacé wu ma de mort léegi adjudant bookum ne ma ndax danga am preuve ma ne ko déedéet aw ma benn preuve mu ne ma waa am na yoo xamante ni tamit. preuve moo la ciy génnee ma ne ko ah man de wax dëgg yàlla aw ma benn preuve te man ak moom ak yàlla ñoo fa nekk xanaa yàlla de doy na ma seede ñu ne ma waaw comme que demee na noonu ba demee noonu il faut que nga am preuve boo amulee preuve tamit du ñu xam ci yéen ñaar kan la ñuy gëm léegi bi ñu ma waxee loolu man tam ma daal di noppi quelque temps ñu nekkaat ci jàmm ñu ñu ñu continuer waat noonu daal du ma dugg ci ay dugg ci ay samay problème ma bàyyi ko définitivement parce que nit ki bu la menacé de mort yi loo mën ci moytu ko rek moytu ko léegi mu dem ba ñu dewalaat quelque temps fi ñu doon raxasee foo xamante ni moom bi mu ñëwee ci kër gi léegi bu motee ci lay yem man kër gi 2001 fa ñëwoon foo xamante ni foofu lañ doon raxasee depuis 2001 ba tey bi ma duggee ci kër gi foofu laa doon raxasee mu ne ma ci taatu fenêtre am la bëgg a jotee ak man di ma daggal ay saaga am sam benn jarbaatu jëkkër bu nekkoon ci biir kër gi ne ma naa teggi bagage yi foofu ma yëkkati bagage yi daal di ñëw di raxasee beneen côté bi ma ñëwee di raxasee beneen côté tamit taxul moom mu bàyyi ma mu bëgg a jotee ak man ni ma menacé ne ma waatal ma ci bakkanu doomam ne ma bu kër gi weetee dinaa la dóor ba butti la. sama xel dem ci liñ ma waxoon naa ut preuve ndaxte lu mënti xew it boo amul preuve moog zéro yem ma jël sama portable bés ma ñetti fan bi di ko enregistré. li ma leen di wax ojo yëpp maa ngi ko amee. yëpp tamit teewul ma delluwaat police. jour bi ma waxee loolu ma delluwaat police. ma ma delluwaat police ma wax leen ka ñu jox ma convo ñu joxaat ma convocation ne naa ko jox ci guddi gi ma ñëw mu jël paakawaat di ma dàq ji ma génn arrêté taxi ci mbedd mi dem ba police ma wax leen ka bi ma demee police wax leen ko ñu ne ma fekk maa ngi am man ak sam benn doom kese ñoo fa nekk bi ma demee police wax leen ko ñu ne ma bu ma fanaan ci kër gi ma nit fanaanuma ci kër gi ma daal di génn daal di jël sama doom daal ut fu ma ko dénkaane man ma ut fu ma fanaan ba ci ëllëg. Fane foo teg ma romb la nga ma ne ma yaa tey nga dóor ma yaa tey ma romb la nga ma yaa tey Fane di xam ne amoo doole nag. yow di nga xam ne yow yow yoroo doole. du yàlla nga yaakaar da ngaa yor doole yow di nga xam ne yoroo doole acca ku ñuy wax naan yoroo doole yor nga doole. Faat Niass wujju peccor gi Faat Niass la lu tudd. Mhm. defe naa Faat Niass moo koy fitna waaw. ah kii wax nii moom la ñu romb dóor ko. waaw moo njëkk a wax waaw moo njëkk a wax dem police ñu ni ko. ñun moom dem na police. waaw mais moom Faat Niass si woon def ni ko boo demee police tamit. waaw mënuloo ma dara. voilà policiers yi dañ ni ko ñun. il faut nga indil ñu preuve. léegi nag bi mu delluwaatee nag. pour mhm. preuve. Mhm. lu ñu jotale koy enregistré. Hmm. ndaw si da koy ay palaat ay ndox mu tàng moom daal. yéeme na yamul foofu de. waa léegi moom jëkkëram lu ah yamu fa. non jëkkëram a nga bi jëkkëru ki muy xeexal moo ne ci kër gi moom ak doom rek ñoo ne ci kër gi déglu mu ko woon. ba tribunal ma gisee procureur fi ma gisee procureur ma explique que yëpp nu mu demee te ba pare ma nekk ndaw si nee na daa am bralon du mujj fenn procureur xamal ne ma ne carrément loolu mënta nekk léegi procureur ne ma dangay ngay bind plainte nga bàyyi ko fi bi ma bindee plainte daal di koy déposé bi mu ñëwaatee police soor ñu dem ñu enquête bu ñu dégloo ñu ñaar ñëpp ay mbokkam ak ñëpp ñëw di ñaan nit ñu ku nekk ne ma bàyyil bàyyil am na loo xam ne rafetul suñu dëkk carrément man ba ñu ma bàyyi te moom lii mu ne daf may rey ci li mu jàpp la jàpp nit ñi ne ma loolu day wax rek day wax rek day wax rek ma ne tàngalal na ma fi ndox police mu jëlaat ma fi paaka tamit ma dem police mu jul fenn waxee moom ci boppam moo may précise ne ma demal police ba demee police di mujj te effectivement ni mu koy waxee noonu lay amee su ma génnee su ma demee police it su ma ñëwaatee du mujj fenn dernière fois bi sama biir néeg la ma fekk toujours boobu dama yeew ma gis ko muy tëj buntu kër gi bu ma ko gisee muy tëj buntu kër gi pour man doomam mooy génn muy tëj buntu kër gi fekk sama jëkkër mu ma yónni woon sama xaalisu dépense ma génne ci vingt deux mille fay ko électricité ma dese cent vingt mille li ma ko tege woon ci kaw lal bi di génnee sama xaalisu gaz ak sama fayu école doom dama geestu man rek ma yem ci moom ma xamante ni kii histoire moo ko dugal ci biir néeg bi ma bës maa ngi amoon sama portable ma bës ma ñettafoon bi ma sànni ko ci kaw lal bi. bu tombéeg juste moom yegg si na ci man le temps que may jël gànnaay sama diggante lal ak coin fa la bës sama bopp bi mu bësee sama bopp si diggante lal bee coin bi munuma yëngatu munuma def munuma def dara mu bës fa sama bopp ba munumaa nooy léegi mu tourné ci sama coin benn paaka mu fa woon paaka boo xamante ni moom laa doon daggee xaar ni ma doon féqatoo dama geesu rek yam ci paaka bi yàllaa ma defal sutura sama serpillière bu nekkoon foofu ma jël serpillière bi rek risque nga béyee ko fi catu paaka bi xëcc ma xëcc ma jël paaka bi sànni ko ci ron lal bi bi ma tiimee di ma dóor ba ma miir ma daanu ci digg néeg bi le temps que muy génn sama 128000 yi fa nekkoon jël na ko enregistrement bi ma doon def mu jël ko supprimer ko maa ngi jàkkaarloog moom nii tëdd mënuma dara maa ngi jàkkaarloog moom mu jël ko supprimer ko. ci la génn bi ma jógee may miir mënumaa jóg. ma toog ci bunt néeg ma ne ko diw yow fekk sama biir néeg di ma dóor yaa may fekk sama biir néeg di ma dóor mu ne ma man maa la fekk sa biir néeg di la dóor te nangam tànn ci dégg j'ai ci wax dara loo xamante ne doonul li am bi ma porté plainte ba ma ñëw ba ma jox ko euh, chef de quartier bi jox ko convocation bi dama ñëw mooy dugg ci kër gi mu jël paaka ne ma du ma dugg ci biir kër gi bi ma wootee police ñoom ñu ñëw jël si ko fa bi ñu entendre ñun ñëpp ba pare xamal ma ne carrément man maa la wax ji nii du mujj fenn fenn du ko mujj ni mu ko waxee noonu la amee mujjul fenn bi ñu ko bàyyee mu ñëw ci guddi gi sama biir néeg maa ngi tëdd sama kaw lal mooy jur bi ma jógee hôpital maa ngi tëdd sama kaw lal mu taxaw ci bunt bi pour man bi mu taxawee ci bunt bi mu jël benn plat ne ma ko xër ne ma waxoon naa la nangam tàndangam bi ci mujj ma dem ci jëkkëram ma expliqué ko jëkkëram waxuma dara parce que problème yi ci am yëpp jëkkëram fekkee na ko ci kanamu jëkkëram la problème yi ci am yëpp ci kanamu jëkkëram la bi yoon bu ñu demee ba ñu entendre ñu ne dañ koy defeere ma ne leen ma ne leen man ñu defeere ko ak ñu ñàkk koo defeere amaluma benn njëriñ benn njëriñ amaluma ko amaluma benn njëriñ man li ma intéressé mooy na ma bàyyi tout tranquillement mu bàyyi ni muy menacé de mort te fu mu ma waxee mu ne ma sa bakkan sama loxo la nekk dina la rey walla su bés ma pare ci yow ku talul wax waaw ku talul lekk doo tal wax ma ne ko ba tey yow yaa ngi sama kaw yàlla ngi sa kaw làqoo naa la yàlla. mu wax ne du mujj fenn trois fois yi mujj fenn it mujjul fenn bi quatrième fois bi noonu li ma fekkee sama biir néeg agressé ma daf ma ne carrément wax ji nii dangay sonn rek waaye du mujj fenn man maa la ëpp bras long ne ma carrément buñ ma convoqué fii laay toog yow yaay dang ci dang ci di dem waaye man fii laay toog xamal ma ne carrément ne ma dossier bi diw ak diw ñoo ci teg seen tànk. mu toll ni daal sonn naa tiit naa jaaxle na ndaxte ku ñu menacé de mort man kese maa fi nekk ak sam benn doom sam borom kër Gàmbi la nekk li muy uti ci la ñuy suturloo ñaari fan ak ñett bu déggee problème ñëw moom it daw na ci ba sonn mu munu ci dara. Dala nga taxi maa ngi dee. Dala ma taxi. Dala nga taxi maa ngi dee. Dala ma taxi. Bàyyi wax. Dala ma taxi. Wax baaxul. Dala. mi ngi li ma si mën di wax daal mooy. waaw nga kër yi dañoo xumb de. dañ na dëgg nag mais nag mais nag mais nag Ndiaye. Hmm. jëkkëru ndaw si. Hmm. ak jëkkëru kii doore. Hmm. du ñu ay responsable parce que kii doore jëkkëram. waaw coow yëpp fa la ko fekk. lépp ci ci man yor naa audio yoo xam moom mi ngi taxaw di wax. dégg naa ko mais bi ma ko woowee tey suba. daf ni moom mosu koo fekkee. waaw léegi. waa ji ñu may jabar mu bàyyi ko fi dem Gambie. ñu koy dóor dóor dóor. première irresponsabilité ngi noonu. deuxièmement mooy yow sa ginnaaw la fiy xew dalul sa xel. Uh-huh. jëlal sa jabar même boo ko dee dénkaat yaayam wala papam ba ñëw. Uh-huh. li jën situation bi. xam nga lii nii lan lay def. Uh-huh. nee na moom daa dem wuti lu ñu suturloo. mais ban yow tey suñ la joxee jàkka ne la ko. nga toog di garder ba fàttee julli. est que dina ko jar. du ko jar de ah, waaw lii ngay lii lii lii sénégalais yi dégg jamono jii. waaw lii moo am ci këru Sénégal yi. ndaw si del xool dañuy xool ba bañ ray ko. nit ñi doog a ñëw di intervenir. yóbbu ko Sénégalais yi dañu mën a yaakaar. famille baa ngi seetaan jëkkër yaa ngi seetaan. police su fekkee ni mu waxee noonu demee ñi ngi seetaan. bis bu catastrophe amee ku nekk yor sa gémmiñ di wax. ba si ngi ñëw nag ndaw sii ñuy dóor. riposte gaañ kee di dóoraate wala mu ray ko ñu ni ko affaire bi këpp ci kawam wala ka koy dóor gaañ ko ba rey ko. nit ñi bakkan bakkan tëdd nit ñi di doog a jóg. lii moo am ci biir kër yi. ma balaa kenn a jóg waaw. seeni jëkkër nañu jóg. waaw. kenn ku nekk sa xetu ngemb doy na la fóon. ñun liy xew suñu kër yi. waaw doy na sëkk. waaw kenn du fi jóg. ñoom nañu jóg. waaw ñoom nañ daw si bu fekkente ne gisul lu mu xam. na am fulaak mat gu toll ne buu bi dëbësam dellu ay këram. mais ndaw si lu tax mu naan affaire bi du mujj fenn. te su demee du mujj fenn audio yaa ngi fi de. mais loolu benn version la loolu wax. benn version